ñenn ñi ci lu ñeel wàllum processus électoral bi waaye li ñuy lu mooy calendrier bi nga xam ne daa nar a perturbé wu bu baax a baax nag lu ni mel mësuñu koo xamee réewum Sénégal ñoom nag li ñuy wote mooy acteurs yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ci bokk ñu xool naka la ñuy def ngir mën a waxtaan ci nu mu gën a gaawee jaarale ko itam ci ak salaama ngir élection mën a am ci réewum Sénégal ñu xool bés bu rafet boo xam ne ci la ñuy amal yooyu la jongante bu ko defee ñu jokkalante ci nu mu gën a seddee ci nu mu gën a gaawee nguur gi jóge ci loxoy président Macky Sall dem ci keneen dolli nañ itam rafetlu président Macky Sall li mu bokkul na leen bu a baax mooy lu ñu fi mësul gis daal di fiy am ñu respecté wul loolu mooy kaddu yi nga xam ne jamono ji waa États-Unis jàpp ko jëmale ko ci réewum Sénégal muy nag loo xam ne gàcce la ci réewum Sénégal bu ñu demee ba àdduna wërngal képp di ñu joxañ naan ñu seen dugg nañ ci loo ne kenn mësu ko koo xamee dara waralu ko nag lu dul président Macky Sall ak ñi mu àndal mel ni dañoo bëggul bàyyi nguurub Sénégal ñeneen daal di leen ciy wutu am ba des mooy askanu Sénégal wile li ñu jàpp mooy benn bés bu rafet la ñu am muy le vingt cinq février deux mille vingt quatre ñu fas yéene ci tànn suñu juróomeelu président nar a le président Macky Sall au palais suñu calendrier électoral dañ ko fas yéene daal di respecté. AGT News. Les États-Unis d'Amérique viennent de s'exprimer sur le report de la présidentielle prononcée par le président Macky Sall. Le Bureau des affaires américaines a clairement regretté la perturbation du calendrier républicain. Le texte publié le suivant. le Sénégal a une forte tradition de démocratie et de transition pacifique du pouvoir. Nous respectons la nécessité d'enquêter sur les allégations d'irrégularités dans le processus de vérification des candidatures, mais nous regrettons les perturbations du calendrier électoral qui en résultent. Nous exhortons tous les participants au processus électoral au Sénégal à s'engager pacifiquement dans cet effort important visant à fixer rapidement une nouvelle président Macky Sall de sa décision de ne pas se présenter des États-Unis d'Amérique par rapport à la situation du Sénégal? Mais ce qu'il faut noter, c'est que les Sénégalais voudraient que le calendrier électoral soit respecté pour que le le président Macky Sall au palais dans la paix, la sécurité, mais aussi en toute démocratie. AGT News.